nekkuma équipe nationale xam nga dañ naan Sénégal nag y a 18 millions d'entraîneurs waaye am naa sañ-sañ sama équipe nationale am naa sañ-sañ wax lu ci ne wala lu mu ci lu mu ci xalaat Aliou Cissé c'est un entraîneur ba muy doon footballeur tojul fenn xaar loo doon def défense ca gannaaw loo doon ne mu bëgg ñu indi système boo xamee ni daanaka euh, ñoom seen biir sax. ñoom ñooñu yëkk wax ne ni système bi foog ñu xoolaat ko bu ñu demee ba Sadio Mané naan système bi foog ñu xoolaat ko yàlla bu mu indi féewaloo digganteem ak Aliou mais il a parfaitement raison parce que moom ci benn moment mu ngi woon ci tribune bi toog di seetaan xam ndax baax na wala baaxul. mu ne nii faw ñu changer système bi ah nañ ko jàppale mu changer système bi j'ai vu des gens dire euh, non euh, ministre de la jeunesse euh, des sports et de la culture euh, dafa ñàkk wërsëg mais du ci moom fubalul conditions yi footballeur yi war a jox euh, am jox nañ leen ko dugal nañ leen ci conditions yi gis na ci yeneen réew yi la sa tur siiw siiw siiw boo doxalul dañ la fay jële teg fa keneen wax man dañ ko fa war a jële de mais entraîneur xoolal yeneen équipe yu mag yi ci nekk ci àdduna ay entraîneurs yu gën a siiw suñu entraîneur di am ay victoire ak ak lu nekk am ku bu nekk ñu jël ko waaye bu ñu doxalul dañ ko naan toogal nga xaar ñu set keneen koo xam ne mën naa doxal ah peut-être que li ko li Sadio ne wax ne ko foog ñu changer système de jeu dina ci bàyyi xel donte nag dafa mel ni man Aliou Cissé dafa wowle dëgër bopp. moom boo waxee da la preuve il te dit que non je suis satisfait du. du match il est content ci seen ah, baax na il est satisfait c'est son droit mais man je suis pas satisfait peut-être beneen amateur de football bi ñuy doon satisfaire ñu ah waaw mais léegi nag coow li mooy <laughs> Mauritanie bee ñuy xeeb nag. buñ ko xeeb de. Uh-huh. Mauritanie gis nañu jaloore yi mu def ci mm-hmm. Coupe d'Afrique bi ñu weesu. Euh, te c'est une équipe boo xamante qui en veut te qui va jouer mais grandement ses chances par rapport ak Sénégal du fa nekk naan non Sénégal la non au contraire Mauritanie la mu bëgg moom la Sénégal bëgg moom la beneen dëkk bëgg mais bu ñu demee ba ay 1-1 ci match bu mel nii ah nga koy fubal sa biir dëkk kontaanuma te man. Amir est kontaan nga dem yaa woon ci stade ba de quand Sadio Mané ñu di que dañu war a revoir.